jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu jiitalee sant sun borom subhaanahu wa taala ñu ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa di sant borom Tuubaa di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sun borom subhaanahu wa taala yàggal ko fi te yàlla wéral ko di ñaan sun borom dëgëral ko kattanal ko ba ak ku bëggam ci liggéeyal xaadim rasul mu defe ko ni ko bëggee di ñaanal mboolem jullit yi ak taalibe di siyaare mbokki taalibe teew ci barab yi muy seesu ànd taxu Madiyana di siyaare mbokki taalibe yi teew yëpp di jël siyaare ak nuyoo yi teg ko ci loxo président muy Serigne Balla Gaye mi nga xam ni moo jiite association bii di ànd taxu Madiyana mu teg ko ci loxo mbooleem mbokki taalibe fi teew yëpp di jaajëfal mbooleem Madiyana yëpp di commencé Madiyana 1 ba Madiyana 6 ci liggéey bu am solo bi nga xam ni at mu jot ñu baaxoo ko def muy liggéey bu am solo di liggéey bu mucc ay di ñaan suñu borom mi tax ñu koy def ak sëriñ bi yàlla na sumboroom borom nangul di jaajëfal mbokk yi nga xam ni ñooy jàllale image yi ci mel ni Waarwi TV ak asti TV nga xam ni jamono bu nekk ñi ngi ànd taxu ma taxuma diyaana ci mboolem activité yu ni def yu nekk ñu ngi ciy ànd ñoom ci di jottali image yi yu mucc ayib ngir mbokk yi nga xam doon teewee jataay yu man ñu man di seetaan image ñu ngi leen ciy jaajëfal baax ci seen ndaw yi nga xam ni ñoo teew ci jataay bi di am mbégte rek ak kontaante baax ci liggéey bu am solo bii xam lii dara ëpp ko solo ci liggéeyal sëriñ bi ndax ku ne xam na ne association bii ànd taxu ma di am na euh, lépp loo xam ni lu jëm ci mbégum sëriñ bi rek daa bokk seenu doxin muy lu jëm ci fas yéene ba ndox mi am ci dëkk bi rawatina Madiyana gi ñu nekk fas yéene it ba dëkk bi set wicc leer nañ ba population bi fi dëkk ñu mën a dëkk dëkk mucc ayib waaye muy mbooloo moo xam ni it dañuy dimbalante ci seen xel di dimbalante seen alal di dimbalante seen doole loolu yi doon lu am solo loo xam ni munte a ñàkk ci bépp mbooloo muy ànd te yàlla tax yii daa doon loo xam ni lu am solo la ndax ku ne xam na ni sun borom subhaanahu wa taala buy wax ni xeet wi gën ci xeet yi mooy xeetu yonante bi mooy yërmaande ju yaatu ju war a seen biir ak jàppalante gu war seen biir ak dimbalante goo xam war na seen biir lool rek mooy sawabus sun borom tagg xeet yii di xeet yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax sun borom wax ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuroona bil xaw na tanhawna anil munkar kon nag mbooloo mi bu jógee ngir liggéeyal sëriñ bi taxaw taxawaay bu mucc ayib yi nga xam ne moo dëppoo bëggu sëriñ bi kon loolu tawféex ju rëy rëy la te ku ne xam na ni mbooloo ba ñu àndee ngir yàlla jàppalante jàppoote yàlla rek tax war nañ di jàppalante it te yàlla rek tax ndax loolu mooy firndeel ànd gin ànd te yàlla rek tax te ñu ànd ñu rek yàlla yi keesa rek moo war a tax ñu ànd ndax ñu ànd ngir yàlla kenn ku nekk day gis boppam ci biir ànd gi ñi am dañ ci gis seen bopp waaye ñii amut it dañ ciy gis seen bopp ndax yàlla mooy doxe nu ko soob moo tax bu nu àndee ngir yàlla boobaa kenn ku nekk sant rek lay def ci ànd rax moo tax borom di wax ni innama nut'imukum li wajhi llaahi laa nuriidu min laa nuriidu minkum jazaa'an wala sukura bépp mbooloo boo xam ne dañoo ànd ngir yàlla jàppante ngir yàlla dimbalante ngir yàlla nee na santante rek mooy am seen diggante to ku ne xam na ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy gàddaaye màkk di ñëw madinatu munawar am na ñu ko toppoon ñoo xam ni ay milliardaire la doonoon fan jóge waaye bi ñëwee madina nag yàlla dogal na seen loxo jotu seen ginnaaw alquran mi wax ni lil fuqara il muhajirina allasina ukhrijo min diyarihim wa amwalihim yabtaqoona faddan min allahi wa ridwanan muhajirin yooyu nag nga xam ne bi ñu toppee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir pas-pas ngir diine ngir ngërëmul yàlla ban jógee màkk ñëw madinatul munawara ku ne xam na ne alal jin amoon jëpp dañ ko bàyyi ci dëkk man jóge woon dara waaye bi ñu àndee yonent ba ñëw madina yonent bi daa wax muhaajir yi ansaar yin ñu fekk ni leen na ngeen bokkoo ak seen mbokki jullit yi li ngeen am nga xam ne ku ci amoon kër danga ngaa woo kenn ci ñi jóge woon màkka bokk ak moom sa kër sa kër ci misaal bu dee vingt cinq sur vingt cinq danga ni ko tépp ci digg bi jox ko benn xaaj bi dëkk benn xaaj bi boo amee ñaari mbubb it nga jël menn mbuma jox ko menn mbuma eggoo nañ ci sax eggoo nañ ci sax boo amee benn ñaari soxna da nga yewi benn soxna si bu yidda ji matee sa benn mbokkum jullit miy jóge màkka euh, dëkkoo sa benn soxna bi ñoom seenu mbokkoo sax eggoon na ci loolu nga xam ne nin xaajoo woon seen kër noonu la naan xaajoo woon seen alal noonu lan xaajoo woon seeni soxna noonu lan xaajoo woon seen seen i place noonu lépp te loolu ak mbokkoo rek moo waraloon loola muy mbokk mu nekk kay mbokkam dëgg mooy mbokkum jullitam mooy li suñu borom di wax ne innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axoykum moo tax taxaw ànd taxaw ma diyaana yëpp biñ jógee ñoo xam ni événement bu toll nii di tabaski événement bu rëy la événement bu màgg la événement la boo xam ni xëy na yi ciy war yëpp am na ñoo xam ni duñ ko mën a matale ñu def social suñ biir fas yéene dimbalaan suñ biir kenn ku nekk lam tane moroom mu dimbali ko te yàlla tax te kenn ku ne xam na ni tabaski dañ cee taamu sol lu bees dañ dañ ko cee taamu sol lu bees loolu si taamu la kon nag ki nga xam ne bëgg naa sol lu bees te amul ko sole yàlla dogal nga nga yëkkati mbuub mu bees jox ko mu sol loolu tiyaabu ju rëy la te day feet goo xam ne buñ sañoon kenn du am lu ko naqari ndax sunna la soo xam buñ sañoon ñëpp dañuy yëg bis bi ni bisu feet la maanaam ñëpp dañ ci am fierté ñëpp dañ ci am mbégte te borom kër bi nga xam ni amutum xar mën naa am jafe-jafe ci dundu feet gi soxna si nga xam ni moom la borom kër war a solal mbubb te amul mbubb mu mën naa am jafe ci dundu feet gi borom kër bi yor ak njaboot it te njabootam amul bu mu leen solol wala dàll yu leen jox man na noo am jafe-jafe ci dund feet gi te bis la boo xam ne ñëpp dañoo war a yëg ni bisu feet la waaye bisu mbégte la waaye bis la boo xam ne kun ne ci war a yëg boppam moo tax ànd taxaw ma diyaana it jóg jógiin woo mucc ayib la ngir bëgg bu ñu ci bis boobu kenn ku nekk yëg sa bopp ci loolu nga xam ne ni ñu ko defee it mooy lu mucc ayub ndax ginnaaw bi ñu ko sàkkoo kenn ku nekk la man mu joxe ku ñëw ci barab bi xam ne liñ fi andi lu baax lu mucc ayib la ndax liñ fi andi lépp lu smaana sol la bu dee dal la dal yu bees sàq la bu dee ay yére yére yu bees sàq la yoo xam ne yu smaana sol la egg nañ sax teg or ci euh, jàpp lante muy lu am solo kon loolu day wane waat rek ni li sunu borom wax ni lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun du ngeen am mukk li ngeen gën a bëgg loolu da ngeen a nangoo jël li ngeen gën a bëgg joxe ko yàlla tax ñi fi joxe liñ joxe lu si gën a bëgg la kenn ku nekk li nga joxe bëgg nga ko suloo ko ba mu ràpp ba soxlaatoo ko tax nga joxe ko waaye daa doon loo xam ni la gën a rafet sa gaal moom nga génn joxe ko te jëmmi yàlla rek ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tax ak dimbali sa mbokkum julit waaye dimbali sa mbokkum taalibe kenn kuy def lu baax nag di ko rëccu du am jëf ju baax kenn du ko def di ko rëccu wax na ne lu waaye jëf ci lu baax boppam rek la ko jëfal donte mën naa neex ci ñeen koy jox ndax ku ñu yëkkati jox la ko dana neex ci yow ku yëkkati ambuloo jox ko lu ca mën a nekk ci xaalis nu mën a toll dana neex ci yow waaye la cay njariñ day delluwaat ca ña joxe te yàlla tax moo tax sunu borom doon wax ni anuskur lillahi wa man yaskur fa inma yaskur li nafsihi képp koo xam ne sant na yàlla lay njariñul sant day dellusiwaat ci jaam bi sant yàlla waaye képp koo xam ne jëf na it dana neex ci ki ko jëfal waaye lay njariñ day dellusiwaat ci yow mi ko jëf kon képp koo xam ne def na ci aw ñaxam moo xam joxe mbubb moo xam mu xaalis moo xam mu joxe dàll moo xam mu joxe takkaay wala lu mu a doon képp koo xam ne def na ko ci noo xam ne pay gi mi ngi koy xaar ta pay gi moom incha allah yàlla mi tax mu koy def yàlla moom dana ko fay te sëriñ bi bi mu nuy boole ngir ñu jàppalante rek moo tax loolu rek moo tax social da bokk ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi gën a mag ndax Sëriñ Tuubaa boo xoolee liggéeyam bépp ginnaaw yàlla social la léppam aba sedd dara lu ci génn social amut moom Seexul Xadiim ndax boo xoolee demu géej gi social la boo xoolee xasida yi mbind yëpp social boo xoolee téere xam-xam yi mu bind social la boo xoolee dëkk yi yi mu social la kon sëñ tubaa daraam loo xam ne génn na social am léppam social la kon nag képp koo xam ne yëg nga sëñ tubaa di taalil sëñ tubaa war ngaa xam lan mooy social nga góor ko dox ca loola xam ne social dara ne kopp tiyaaba ndax tiyaaba ju rëy rëy la ci koo xam ne fekk nga sa mbokkum jullit mu soxla dara nga jàppale ko ca loola loolu day tiyaaba joo xam ne yàlla rek moo xam fu mu ak fu mu yàlla it moom la bëgg moo tax si Amadou Fadal da daan wax ni jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi julli jaamu yàlla la naam loolu la daan wax koor baax na naam xaj màkka baax na naam waaye li gën a baax nag mooy fekk sa mbokkum julli ci lum yittewoo nga jàppale ko ca loola wax na ni surtout sa mbokkum doomu aadama sax nga sol saw dàll di ca dox doonte yitte ja fajuut yow yàlla doon na la bindal tiyaaba yi tiyaaba ju tol ni ko xam ne dox nga ca aajo ba aajo yooyu faju tey dara lu ko féete kaw amul maanaam sa yitte doomu aadama rawatina nit ki li mu bëgg nga fexe ba taxaw ca loola def ko te yow ko def yàlla rek moo tax waaye li a solo it moo ñu joxee ko joxin woo xam ne am na sutura ndax nit da ko jox dara sax waaye joxin wi dana tax du ko soxla waaye bàyyi ba suuf sedd nga yëkkati dara jox ko te muy lu mu gën a bëgg loolu la mag ñi daan dund sëñ Tuubaa mii noonu la daan doxee taalibi sëñ Tuubaa yi noonu la daan doxee mag yi taalibi noonu la daan doxee maanaam cee tudd ko ñu mel ni Sëriñ Sohay bu mii di borom Madiana wax na ne ku ma di dimbali day bàyyi ba suuf sedd lu mu la mën a dimbalee mu yónni yónni kenn ci mag ñi mu andi ko sa kër mën naa ñëw sax fekk nga tëj sa buntu kër waaye du la fëgg da koy jëli ci biir kër ga bu dee saako pepp da ngay xëy gis ko ci ëtt bi bu dee saako ceeba da ngay gis ko ci ëtt bi waaye doo xam kan moo ko fendi kon loolu day wane ni loolu mooy dimbali nit ki te yàlla tax wax na ne boo saa jox nit xaalis lu mel ni ñett junni ak ñaar téeméer day jël ñaari junni féetale ko biir jël ab junni teg jël ñaar téeméer teg ko ca nga xam ne bu la ko joxee da nga jàpp ñaar téeméer la la boo leemee junni nga jot boo leem waatee jot ñett ñaari junni nga xam ne seize mille lay doon waaye li gën a néew mooy féete kaw ngir ba ku ko teg bët jàpp ni lii lañ ko jox fekk lam la jox app na loola ngir wane rek lépp lu ñuy def nan ko def te yàlla tax ndax su borom daa wax ni nit ki li muy joxe te yàlla taxut lu mu rëy rëy du ci am tiyaaba waaye lépp lu muy joxe te yàlla tax lu mu tuut tuut yàlla dina ko ci bindal tiyaaba moo tax su borom waxoon ni lépp lu ngeen di def ngeen ko def rek te yàlla tax liggéey bii nag di ànd taxaw ma yàlla lii muy liggéey lépp luñ ci def yàlla képp moo tax ndax ñi koy joxe yàlla rek a tax ñu koy jox waaye ñan ko koy yóbbuwaat di ko sëriwaat di ko joxewaat ñooña it dañuy bàyyi ba suuf sedd ñu dem ci kër yoo xam ne leer na ni ñii yittewoo nañ ko ñu jox leen ko tayit du ci soxla sax ku ni leen jërëjëf donte ñoom mën na noo sant mën na noo gërëm waaye la tax ñu koy def mooy yàlla kes kon loolu doon lu am solo loo xam ni dara féetewul kaw ci liggéey bi nga xam ni bu doon njariñ lii képp moo tax Anta Ahmadiyana juddu mooy événement bu see mooy mel ni tabaski wala lu mën a doon ñu jàpp leen suñ biir képp waroon naa tax kuréel bi judd jëlale naa nag yeneen liggéey yu am solo yi nga xam ni an taxu ma yaan koy liggéey waaye bu doon lii képp jaroon na ko ndax ku ne xam na ni liggéey sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw ndax ku ne xam na ni ku ñëw ci jataay bii sa xol dana sedd ndax mbooleem lu dajale woon daaw joxe ci ay yére genn madiyaana képp andi na ko jëlale naa yeneen madiyaana yi ci des kon nag buñ boolee liñ boole tey lan amoon daaw lin am ren faw xana ko loolu mooy wane ni liggéey sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la tey day daa mbir moo xam ni li naan ku ci jàpp day dem ku ci day dem maanaam du taxaw liggéey sëñ Tuubaa kon nag lii lu am solo la ñuy ñaan yàlla suñu borom defal nu tawféex waaye defal nu taysiir waaye defal nu ci ngërëm yàlla mi nga xam mooy nangu ab liggéey tey nangu jëf yàlla na ko yàlla nangu te taboogo jëf ya nga xam ni dara mun ko yàq ndax suñu borom subhaanahu wa taala nee na wa maa tuqaddimoo li anfusikum min xayrin tajidu indallaahi wa xayran wa sama ajran lépp lu ngeen jiital ci lu baax lépp lu ngeen jiital ci lu rafet yàlla nee na bu ngeen ñëwee ci man fekk fi lu gën a rafet loola fekk fi lu gën a baax loola nee na bu dee lu néew sax ngeen fekk fi lépp loola te ku ne xam ne li jëf ju rafet ak jëf ju yiw ak jëf ju baax wu kaw ndax fekk ku lott nga jàppale ko te yàlla tax tiyaabu ju rëy rey la te def ko ngir yàlla rek kon lii yàlla kese moo tax kon loolu di tiyaabu ju rëy rey kon yàlla moomu yàlla na ko yàlla nangul ci barkeb Sëñ Tuubaa ndax liggéey bi day liggéey bu mucc ayub doon loo xam ni doon na loo xam ñëpp war nañ ca bàyyi xel doon loo xam ni buñ ko soññeetee kenn wut ta des ginnaaw ci góor ci jigéen ci mag ci ndaw ci ndaw ñëpp ci war a jàpp ngir jëmmi sëñ tubaa xam ni ku ni sëñ tubaa taral na la nga jooju nag war ngaa fexe ba yaatal ko ngir jëmmi sëñ tubaa kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp di ñaan yàlla yàlla ko teewe ay déwén yu bari bis bii ñu dëgmalit muy tabaski yàlla jàmm ba yéene jin ci am ak mbégte mi ñu ci am suñu borom def na ci lu kawe suñu jot ba mboolem ku dëkk Madiana 1 ba 6 wala ku dëkk ci dëkk bépp yàlla na yàlla def tawfeex suñu yéene egg ba matali ñëpp ci barkeb sëñ tubaa ñu ngi jéggul ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi ngi nuyu waa social bi di leen jaajëfal balaa may wax dara ndax macha allah tey moom fii képp ku fi teew rek sa xol sedd na guy guy guy maa ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp di jiital ci nuyoo bi nag ak jaar bi suñu président ànd taxaw Madiyana suñu président ànd taxaw Madiyana Baye Balla Gaye di ko jox wàccuwaayam di ko jaajëfal bu baax. bu ma ko nuyoo rek dina eggale nuyoo bi si ñëpp di nuyu Baye baaba suñu président an taxaw Madiyana social bi di wax ni lii lépp moom la jàmbaar la tàyyiwul dawul benn yoon bu loolu lépp jàllee nag maa ngi nuyu waa Madiyana 1 ba 6 tey gis na niñ fi ñëwee ay jàmbaar lañu vraiment di wax ni sociale bi nag lii commencement rek la ndax ku nekk xam na ne ni ñëwee woon daaw ak ni ñëwee ren du benn te jàpp naa ne bu ñu yàlla kàttanalee ni ñuy ñëwee déwén mooy raw ak déwén jéeg yàlla na ko ñëpp fekkee te kenn bañ a manqué di jaajëfal waa Kaat nag ñi nga xam ne ñoom laa àndal liggéey bi macha allah du ma limee soxna May Fall mi nga xam ne mooy présidente ànd taxaw Madiyana Kaat mën naa yóbbaale ñëpp mais ñeneen ñi ci des ñëpp mu bokk ak ñoom ay jàmbaar lañ. ñii ma jàkkaar lool tamit muy waa Madiana 5 ñoom kenn demul ñu des ñoom aw Fall ak Nogoy ñi ngi ci côté bee waa Madiana 3 ñi fii 1 ba 6 su ma limee du ma juum mais mun naa yéex a matal mbaa ma fàtte mais vraiment ñëpp kontaan nañu ba bàyyiwuñu kenn kontaan nañ bu baax a baax di wax képp koo xam ne tàbbal nga sa ñaq yal na ko suñu borom yombalal kàttanal la ba bu nee nga man lu ko ëpp wax dëgg yàlla ñëpp ay jàmbaar lañu boo tuddee kii dangay bàyyi kii wala nga fàtte kii mais wax dëgg yàlla lii moom képp ku fi teew wala ku fi romb di dem xam nga ni lii moom ay gone def ko ay mag a ko def kon ñi ci suñu kanam tamit ñi ngi leen di ñaanal ñu yàgg fi loolu te weer ñu yàggu jiite ba lépp loo xam ne bëgg nañ ko ñu eggale ko ndax jàpp naa ni mbooloo mooy doole te lépp loo xam ni bëgg nañ ko bu ñu booloo dinañ ko man ndax daaw amoon na mais ni mu amee daaw ak ni mu amee ren du benn te dafa mel ni li ñu mënoon daaw li ñu man ren moo ko ëpp te loolu noonu booloo gi moo ko waral yal nañu yàlla musal ci seytaane te kàttanal ñu ba lépp lu ñu bëgg ñu def ko barki Seydina Muhammad barki sëñ Baara sama sëriñ maa ngi ñaanal ñëpp wasalaam. Euh, fab euh, nuyoo ñi nga xam ne station Ande Taxawu Madyana bu ñu ko tegee ci loxo président bi mu jotal ko mboolem ñi nga xam ni ñooy euh, waa Ande Taxawu Madyana ba 6. ak diaspora bi muy euh, septième bi xam naa kàddu yi tënk ko rek ndax euh, xaw na noo bett euh, rafet lu baax tamit ndax yaakaar naa ko mbokk mi bàyyi woon sànq rek soññee yi nga xam ne defoon na ko ci liggéey bu am solo bi de ndax liggéey boo xam ni kenn ku nekk mën nga cee bay sawaar en même temps liggéey boo xam ni liggéeyal islaam la waaye tamit liggéeyal Serigne Touba radiyallahu anhu la en même temps tamit liggéeyal sa bopp la ndax bu ñu xoolee tey lii fi nekk nga xamante ni mooy ay ndimbal yoo xam ne day jóge ci li ci ab jullit dem ci mbokkum jullitam euh, comme ni ko mbokk yi waxee sànq yaakaar naa bi lislaam di tàmbali euh, gis nañ ci ni nga xamante booy métti woon na lool ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay Makka ñëw Madinatu Munawwara yàlla dogal ñoom ñu nekkoon ay milliardaires foofu ca Makka en même temps bi ñu ñëwee Madina euh, Makka ñëw ba ñu ne mu ñëwee Madina nekkoon yoo xam ne ñu gën a pauvreté ne ak ñàkk dugg leen mais tamit danoo faboon seen ngor en même temps fab seen diini fab seen alal fab ko jaay lépp ko jaay ko ki nga xam ne mooy yàlla yàlla borom bi tabaaraka wa daal koy jënd moom it tamit jëf ji tamit jëf la joo xam ne day dellu foofee rek ndax dimbale dafa am solo te alxuraan dafay wax ni wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wala udwaan dee leen ñu dimbalante ci ak mbaax ak ragal yàlla tey bañ a dimbalante ci loo xam ni mooy mën na leen a jural li ñuy tudde mooy bàkkaar ndimbal yi nag dafa nekk loo xam ne am na xaalis boo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa képp ko man kasafa musliman kiswatan kasafahu llahu fii kisafa jamul axir waaye tamit man faraja musliman kar kurbatan karaballahu kurbatan min kurubi yamal xiyaama mu nekk loo xam ni yonent bi salaa ab xadis la boo xam da ciy indi ñeenti article mooy ñeenti point yoo xam ni yëpp ci wàllum social lay lay tudd mbokk mi jiitu sànq na ko mooy ab julit am xaajo moroomum julitam dem dox ca ba aajo ja faju même bu yàlla dana ko fay tuyaabay aaja ju faju waaye rawatina jullit boo xam ne dafa nekk ci tolof tolof ndaxam xam ni tey dimbal rawatina événement bi nga xam ne lañu jul te jullit bu nekk tey boo soñeen wala sa xel ak sa xalaat yi mooy nan ngay def ba événement boobu réussir ci sa njaboot mais am na ñoo xam ne comme yàlla mooy bind am ñoo xam seen yoxo jotul li nga xam ne mooy seen ginnaaw mais jullit ñi nga xam ne tamit tey ñoo fa ay yére dem solo ko ab jullit yonente bi salaa salaam moo ni képp koo xam ni danga nga solal sa mbokkum jullit ab yéere ëllëg yowmal xiyaam la la ko yàlla di fayee mooy ci yéere yi yowmal xiyaam la la ko yàlla di faye kon ki ci def na ko jàpp ni jëf la joo xam ne wala kulli xaal yàlla dana ko fay ndax yàlla moom inna allaha laa yudii'u ajra muhsinin damay faral di wax ne nit mën nga koo defal mu fàtte ko nit mën nga koo defal ëllëg du ko tudd waaye yàlla moom du fakk jëf kenn ku nekk lañ ci jëf ndax alxuraan moo ko wax yàlla moo ni man yàlla duma sànq jëfi koo xam ne da rafetal rawatal nag ko rafetal jëmale ci mbokk moo xam ne mbokkum julli la te tamit baax na la ci gërëm sax ndax yaakaar na bu ñu xoolee te ji mbokk yi génne seen yére yére ba boo xam ni looy sol la loo xam ne nekku loo xam ne tey da nga koo fab rek sànni ko ci wala nekku loo xam ne da nga ko sànni rek mooy feccale ko ay ngegenaay te day dugg ci la alxuraan wax ni du ngeen baax lu may da joxe ci li nga xam ne moom ngeen gën a bëgg kon bu ñuy xool ku baax dëgg mooy lan alxuraan ne yàlla ne man mënumaa reconstruire nit ki baax na kañ ne ni nit ki baax na yàlla ne boo foobee la nga gën a bëgg bu fekkee lu ñu lekk loo xam ne bu ku la ko joxoon lekk ko en même bu fekkee lu ñu sol la ku la ko joxoon nga sol ko bu fekkee lu ñu naan la ku la ko joxoon nga naan ko nga jël loolee yëkkati ko dem joxe ko ëllëg yomal xiyaam yàlla ne ak mbaax dëgg dëgg dëgg loolu mooy ak mbaax kon nag jëf la joo xam ne jullit bi koy def mooy bu mu ko xeeb tey ku ci def lu néew ak lu mu néew néew néew bul ko xeeb xam ni yàlla du fakk jëf te bu ko yàlla fay ala kulli xaalin yàlla dana ko fay te alxuraan dafa soññee lu bëree bëree bëri ci social waaye tamit lislaam taxaw ci social kon nag bu ñu dëkkee dëkk bi nga xam ne mooy Touba comme ni ko mbokk wax te yaakaar na Sëriñ Tuubaa radiyallaahu gis na tamit ay jëfam yu bëree bëree bëri moom xam na nan lay def mais ñi topp ci ginnaawam ak ñi nga xam yooyu ay jullit sax topp ci euh, bëgg a baax ñoom nan la ñuy def mooy ba àggale ci yàlla loolu moo tax tey yaakaar na bu ñu xoolee mbind mi bëree bëri nit ki tey euh, jàng wala ñu ko jëfi ñoom moom moo ca jëriñoo mais euh, euh, grâce à moom mi nga xam ne moo jëf jëf rajo kon jëf ji jëf la xam ne kenn ku nekk mais waxuma sax ki si joxe mais ka doon dimbalee wala ka ci ndax alxuraan wala xadis wax ni man dalla ala xayrin fa lahu mislu ajr faalihi képp koo xam ni amoo sax mais yow jéem nga dox dem wuti koo xam ne am na nga indi ko yaa ko joxe yéen ay bokk tuyaaba ndax jëf ju baax dafa mën a yaatu lool lool lool moo tax mbokk yi ñu ñiy jaajëfal ñëpp vraiment euh, gis nañ liggéey bi am na solo lool mais tamit yàlla na jëm kanam mbokk yi nga xam ne ñoo jël seen alal xam ni lebal nu ko doomu aadama mais yàlla lan ko lebal yàlla na ku ko lebal ku nekk mu néew mu bëri wa ala kulli xaalin dana la ko fay xam naa kàddu gi dana ko xaw a bett rek da nga koy tënk noonu incha allah wa salaamu aleykum wa rahmatullah te ko baal di jiital bàyyi Balla Gaye président ànd taxaw Madiyana 1 ba 6 di ko jaajëfal bu baax a baax di nuyu bu baax tamit bàyyi baaba bàyyi Baba Gaye président social ànd taxaw Madiyana 1 ba 6 moom it ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaare di nuyu nag suñu kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci biir jataay bi suñ limee duñ juum sax waaye dañuy yéex a matal di ziyaare suñ mbokki soxna yi bu baax a baax a baax di leen wax ne ay jàmbaari Serigne Touba lañ mais Serigne Touba moom rek moo am fay yal na leen fay ci barke Serigne Touba képp ku ci def rek saw ñàq ci social bi yal na ko Serigne Touba ful kattanal la doole la bu baax ba bu nee nga mën fee indi lu mat fukk sa morom indi ko fi loolu moom day doxal liggéey bi bu baax a baax maa ngi nuyu waa kat di teg sama nuyoo boobu ci soxna euh, Nogoy Ndiaye mi président social bi tey moom waa sociale bi ñoo moom liggéeyu tey bii di nuyu bu baax sama sëriñ soxna Awa Fall moom it di ko ziyaare di ziyaare soxna May Fall Ndey matindoo Ndooy maa ngi koy nuyu di ko ziyaare bu baax di ziyaare soxna Khoudia Bey président yëpp maa ngi leen di nuyu ku ma tudd ak ku ma tuddul rek maa ngi lay nuyu yaa ñi nga àndal ñëpp di rafetlu tamit liggéey bi nga xam ne moo fi xew tey di ci kontaan bu baax a baax a baax a baax tey moom ñëpp a ñëpp la seeni xol sedd ndax ñun dañoo bëggul lenn du Serigne Touba am ñu lenn du Serigne Touba suñuy xol yëpp Serigne tubaa rek a ci nekk kon yal nañ ànd ak Serigne Touba rek ba àjjana ci baak Seydina Mohamed di ñaanal mbokki taalibe yépp jàmm képp ku ci joxe sa yére rek su déwénee yal na nga yëg sa bopp gis sa bopp gis lu kawe kawe ci sa bopp boo bu déwénee nga def lu raw lii nga def ñëpp nag ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam waa cinq moom ñooñu aw ma seen fay ñooñu moom ay daali weñ lañ sol barki Serigne Touba. bëgg liggéey bi lool jàpp nag ki nga xam ne moom lañu àndal muy man mu xeebu mii te ñàkk solo lool waaye nag muy ker muy naaj fépp fu ma leen woo rek suba ak ngoon muy taw fekk nañ ma fa kon waa 5 moom dama leen di jaajëfal bu baax a baax a baax gàcce ngàllaama ba ci rek déguisement yi nga xare moom lay sol ñoom ñëpp demal leen ne ku ciy ñëw na nga sol sa déguisement 5 yaakaar naa tey jigéen ju fay fanaan te amul déguisement amu fa ñëpp a ko am kon loolu sant yàlla la bu baax a baax ak déggoo goo xam ne Serigne Touba defal nañu ko ñuy ñaan Serigne Touba defal ko ñëpp ci ànd taxaw Madiyana bi yàlla nañ Serigne Touba dooleel ba bu nekkee ne suñuy toog fii kenn du ci sol rek lu wuteeg liggéeyu an taxaw madiana bi ndax ñun yaakaar naa oto ci lañ dugg mais fuñ jaar rek xale yi sax dañuy daw ne waa an taxaw Madiyana nga ne di dem kon loolu ndam lu rëy la tiitar bu rëy la tamit sag bu rëy rëy la moo tax déguisement yi moom nañ ko fonk bu baax a baax ku amul soo jógee fii tey déguisement yi na sa yitte ndax an taxaw Madiyana moom mooy suñu yitte ñun comme ni ko sëñ Mourtala gay mii di waxee moom tamit man it wax dëgg yàlla dama koy jagleen ak cant bu baax moom sëñ Mourtala gay jàmbaar la ci liggéey bii ba ak Serigne Touba fépp fu mu bëgg liggéey ba egg fi nag yal na ko Serigne Touba àggale foofu man de gis naa njàmbaaram bu wér a wér a wér a wér baak Serigne Fallou barki démb yaakaar naa bi mu taxawee sama buntu kër waa cinq ñëpp dañoo jóg taxaw mu fay wax wax ju rafet di fa wax wax ju baax ko kon Serigne Moutala yal na la yàlla jàmmal ba nga féex ak mboolem jullit bu mel ni yow rek ak ku bëgg liggéey bi egg fi nga xam ne fi nga bëgg mu egg yow di sargalit Serigne Jibi Ndiaye mi nga xam ne moom it day sama mag di kenn ci man moom it muy guddi mbaa muy naaj rek chaque jour mu ngi ci suñ kanam kon sëñ ji bi ñu ngi koy jaajëfal di ko ñaanal moom it yàlla boole ko ci milliardaire yi sëriñ Touba yi moom it muy taalibe sëñ Mbàkke Madina bu wër bëgg sëriñ Touba baax sëñ Touba maa ngi koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér gi yaram bu baax di ziyaare bu baax suñu président muy sëñ Baara Touré moom it dafa am ay xat-xat yu mu nekk moo ko teree teew fii tey di ziyaare suñu sëriñ suñu yaakaar muy soxna May Jaxate kookoo dañ koy beral cant goo xam ne am na fu mu yem waaye amul fu mu tàmbalee moom jaxate jërëjëf ñu ngi leen di sant bu baax di leen ziyaare di jox ñëpp seen wàccuwaay di nuyu tamit sëñ Sidi mii nga xam ne moo njëkk a jël kàddu kàddoom yi rafet lool te am solo ziyaare leen ñëpp nag képp ma tudd ak ku ma tuddul ñëpp rek ziyaar naa leen sama xol it sedd na guy ci liggéey bi waaye yal na jëm ca kaw rek ci lu baax ci bak sëñ Fallou waa léegi kon ñu tàmbalee ko kon ci Madiana soxna Coro 6 la yére 107 njéere 25000 ci xaalis moom la joxe juróomi junni ci xaalis moom la joxe bu ñëwee Madiana 2 ñoom ñi joxe ña 120 yére joxe xaalis 5500 ci xaalis Madiana 3 ñoom ñi ngi joxe seen yére 158 yére Madiana 3 joxe ci xaalis. soixante cinq mille cinquante ñu joxe dàll cinq paires ñu ngi joxe sac ñaari sac Madiana carte ñu joxe cent sept yére joxe seize paires dàll sept cent un yére sept cent un yére joxe seize paires joxe six sac joxe ja ay ay takkaay vingt seen xaalis mu ngi toll ci soixante quatre mille Madiana cinq ñu ngi joxe yére 520 moom lañ joxe joxe ñaari saak joxe juróom-ñetti jàll 8 chaussures moom lañ joxe. globalement bi mhm. ñu ngi ñëw ci 159 550 xaalis mhm. moom lañ fi am 1100. 59 550 ci xaalis loolu lañ fi am ñu ngi am ci chaussure 24 ay dàll 24 lañ fi am mhm. bu dee yére ñu ngi fi am 1606 yére mhm. bu dee bijou ñu ngi am 20 loolu lañ fi am junni ak juróom benn téeméer yére ak juróom benn waaw loolu lañ fi am ci ay yére mm, waaw macha allah kon ñu ngi sant ñëpp mhm. di leen gërëm di leen jaajëfal di ñaan bu déwénee incha allah képp ku fi woon yàlla na fi fekkaat ba na am lu ëpp loolu ci barke Mawlana Tabarak barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaajëf. di gërëm nag mboolam ànd taxaw Madiyana 1 ba 7 ñëpp lañuy gërëm ndax bu ñu duggee ci lim ay tur euh, du sotti tey affaire bi guddi na di gërëm waa Madiyana 1 di gërëm waa Madiyana 2 3 4 ba cinq ñu ngi leen di gërëm li ñuy leeralaat tuuti rek mooy Madiyana 4. juróom-ñaar téeméeri yére la fi indi ak benn moom la fi indi mhm. Madiana 4 mhm. Madiana 5 mi ngi fi indi juróomi téeméeri yére ak ñaar fukk Madiana 3 mi ngi fi indi téeméeri yére ak juróom fukk ak juróom-ñett Madiana 1 mi ngi fi indi téeméeri yére ak juróom-ñaar Madiana 2 mi ngi fi indi téeméeri yére ak ñaar fukk su fekkee madiyaana un la ba tey andi nañ fi juróomi junni madiyaana trois andi fi fukki junni ak ñett ak fukki dërëm madiyaana quatre andi fi fukki junni ak ñaar ak juróom-ñetti téeméer loolu mooy li fi daja buñ ko totalee mu nekk fanweeri junni ak benn ak juróom-ñeenti téeméer ak fukki dërëm loolu mooy total bi léegi nag ñu ngi gërëm ñëpp daaw ñu ngi amoon liñ naan Serigne Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam la am defe naa lii moom wane na daaw 1 ba 7 ñu ngi amoon ñetti téeméeri yére ak juróom-ñett ren am nañ junni yére ak juróom-benn téeméer yu topp kon loolu defe naa ful na ko ay yoon yoon yoon kon wane na seen pësteef ñu ngi ñaan nag ci barke Cheikh laat min yaakaar ku fi taxaw bala ñoo taxaw weer wi déwén nga gis sa bopp loo nga xam ne lii nga def moo ko waral. te kenn bañ a manqué nag ci barke Serigne Touba waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm xam naa buñ mënoon a tudd kenn ku ne sa tudd dañ koy tudd waaye ku ne xam na ni rek tudd nañ la ci suñ xol ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ndax guddi na di jaajëfal ñëpp jërë ngeen jëf waaw président 15 millions waaw li ñuy leeral it mooy Balla président taxaw Madiyana joxe na 15 millions nga xam ni maanaam moom central lañ ko def rek féetewul fenn ndax bal la moom du 4 du 3 du 5 mm. mooy fépp mooy 1 ba 7 moo tax boole boolewuñ ko fenn ñu leen di jaajëfal yéen ñëpp. di tàmbalee nuyoo bi ak siyaare bi ji Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne mooy xalifatul am li taifatul muridiya di nuyu bu baax ak siyaare Cheikh Sidi Mbacke moom Serigne Abdoul Ahad waaye itam di nuyu bu baax ak siyaare Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Souhaïbou nga xam ne mooy borom pàkk bu sell bi ak njabootu Serigne Souhaïbou gi yëpp ñu ngi am mbégte bu baax. di siyaare mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew yëpp dafa mel ni su ma tuddee Baye Njaxa Jaxate tudd sëriñ Abdourahman Jaxate ak Baye Goot ak euh, sëriñ Sidi Moxtaar Xuma day mel ni dina mën a yóbbaale ñi ci des ñëpp ñi nga am mbégte bu baax di siyaare mboolem waa ànd taxaw Madiyana yëpp tàmbalee ko ci Madiyana 1 ba Madiyana 7 mel ni ki ñi ngi sant sëriñ musaa Diagne di sant sëriñ Modou Kanté waaye itam di sant Cheikh Ibrahima gi donga euh, di sant bu baax itam sëriñ Kot Silla ak sëriñ Baara Touré waaye itam waa Siis ñu ngi leen di beral ak cant moom itam di ko jaarale ci Cheikh euh, sëriñ Cissé mi nga xam ne mooy secrétaire général ba mu mel ni ki ñoo ñooy kilifa yi nga xamante ni bi ñoo ne ci bureau Madiana yi euh, di sant waa diaspora bi itam ci turu sëriñ Modou Kara Diaw te mel ni ci jotaay bi Serigne Cheikh Dia teewal na leen fi ñi nga am mbégte bu baax di rafetlu jotaay bu baax a baax di sant mboolem waa an taxaw Madiyana rawatina suñu jigéen ñii mu mel ni ñoom itam seenu cant ak seenu siyaar day mel ni lim tudd mën naa am jotaay bi laaju ko waaye ñu yëkkati ko teg ko ci loxol présidente bi rek muy soxna Fatou Ngom mu jàllaleel na ko ba ci ñëpp ñi nga am mbégte bu baax di bég bu baax ci jotaay bi macha allah mu nekk jotaayu mbégte. nekk jotaay boo xamante ni bii itam warees na cee mën a jànge lu bari ginnaaw bu ñu santee Serigne Baba Gaye mi nga xamante ni bii mooy social bi nga xam ni jotaay bi lépp ko waral euh, di am mbégte bu baax ci liggéey bu solo bi nga xamante ni bii mi ngi koy amal saa su euh, te buñ demee ba jub Tabaski itam day mel ni liggéey bi di gën a ràññi kooti day gën a ràññi kooti mu mel ni ren moom euh, comme ni ko mbokk yëpp waxee rek liggéey bi moom dafa gën a feeñati macha allah mu mel ni kon ni nga koy waxee euh, yoonu sëriñ tànk euh, euh, mbirum sëriñ Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am feeñ na ci ndax ba gisee liggéey bu am solo bi nga xam ne moom lañ defoon daaw wax dëgg yàlla mu mel ni lu kawee ci ñun la woon mel na ni ren moom suul na bu baax a baax a baax am nañ ci mbégte bu baax di sant mboolem ñi nga xamante ni bii takku nañ jóg kere bi ñuy def fii réunion bi te nga xamante ni bii dafa mel ni Madiyaana yëpp danoo xasoon kenn ku nekk mel na ni la nga waxoon keroog tey feeñ na euh, comme ni ko secrétaire général bi waxee euh, leer na daanaka jërul jàll euh, jaaraat waaye wax dëgg yàlla man maa ngi jaajëfal mbooleem Madiyaana yëpp tàmbale ko ci Madiyaana 1 ba Madiyaana 7 diaspora bi seenu taxawaay rafet na lool wax dëgg yàlla jàpp gi nga xamante ni bii jàpp na ci ràññu ko na waaye nag grâce jigéen ñi ñu ngi leen di beral seen cantu bopp ndax mel na ni bu nu wootee jotaay yi nuy woote sax ñoom ñoo fay ëpp waaye loolu man damay wax ni alhamdulilah rabbil alamin xel mu dal rek la may jox ndax dafa mel ni jigéen moom ba lislaam sosoo ba léegi jigéen musu cee des ginnaaw benn yoon moo ci njëkk a joxe alalam moo ci njëkk a joxe ba kanam kon day mel ni jotaay boo nga xamante ni bii gis nañ jigéen ñi ràññi ko fa rek alhamdulilah ku amut ko seetlu day dalal xelam bu baax xam ni jotaay la boo xamante ni bii buy dox jëm ci kanam la kon nag ñu ngi leen sant bu baax di leen jaajëfal baax di am mbégte bu baax a baax di ñaan mboolem koo xamante ni bii def nga ci saw ñaq wala nga sol saw daal lu jóg dem ci nit mu jox la ñu ngi ñaan suñu borom mu defal la ko euh, yokka yokkal la ko maanaam ki ci def alalam yal na ko sëriñ bi yokk te sàmm ko ki nga xamante ni bii dox na ci itam tànk yooye mu dox ba dellu si waat ci këram yal na sëriñ Tuubaa def muy faru bàkkaaram ci barke sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad am nañ mbégte bu baax a baax a baax a baax daal macha allah xol bu sedd lan am ndax jëf ji dafa kawe njort dafa kawe njort jàppoon nan ni duñ am lu toll nii kon nag alhamdulilahi rabil alamina mbooleem ñi nga xamante ni bii ñi ngi ci ànd taxaw Madiyana ñëpp ñi ngi leen di sant baax a baax waaye itam cant gi ngërëm lépp day dellu si waat ci sëriñ Baba mi nga xamante ni bi mooy social bi wax dëgg yàlla mu mel ni euh, ànd taxaw Madiyana léppam social la kon nag feeñ na tey alhamdulilahi rabil alamina ñi ngi sant bu baax di ñaan jotaay bii ñu yàgg koo tax teewee Euh, suñ borom fekke loona bis bi nga xamante ni bii moo tax ñuy def lii itam muy euh, bis bu màgg bi nga xam ne moo ne ci suñ kanam kenn bañ a màgg ci mag sëñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad maa ngi sant ñëpp di jaajëfal ñëpp di ñaan jëf ci kawe ji nga xam ne am nañ ko yal nañ ci daje ak tawfeex yi sëriñ bi ci mag sëñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad jërëjëf ndax nag liggéey sëriñ bi liggéey loola dafa jafe te sëriñ bi moo la liggéey loo yow ak ñi nga àndal kenn ku nekk nag yëkkati na ay mbir mu àgg waaye ñi bari yëkkati nañu ay mbir te àggul dafa mel ni biñ tàmbalee liggéey am taxaw ma na bañ defaree ndox mi ba noppi dañ ni bu fi yeman sax doy na waaye ñu ni loolu taxunoo jóg daa bokk ci yéen tax a jóg ñi mébét yu baree bari yu am daaw ñu jëf-jëf ju rëy mooy bi biñ defaree ndox mi jëf ci social bi jëf ju am solo dem ci dispensaire bi yóbbu ca fukki lal yoo xam ne lal bu ne wëlër wu am solo la ndax lal bu complet la am na trois yi muy àndal ànd ak yi am solo yi nga xam ne yi defar perfection yëpp daf ciy ànd muy lu am am solo xam ni bañ koy yóbbu ci dispensaire dispensaire bu ñu ko yóbbu bu nekk xam nañ ni ñi fii am nañ ci matériel boo xam ne bu yittewoo woon la daaw social bi ñu jëf ci jëf yu am solo yoo xam ni jërul dellu sax di ko répété waat ndax dafa mel ni am taxaw Madiyana lu ñu romb dañ ko war a fàtte suñ ko dee waxaat itam dañ koy soññee rek ngir ñi xam ne xamuñ ñu woon ni ànd taxaw Madiyana daa ngi dox te doxee na nii ñu xamal leen ko waaye du sax bëgg a waxaat waaye nag mënut ñàkk lu baax la lenn rek mooy li nga xam ni jërul di répété mooy safaan ba safaanu baax waaye lépp lu baax moom jar na répété ndax dana tax ñu gën a dolli dañ dolli ak cawarte kon président Balla ñi ngi lay sant cant gu wér di sant président sociale bi cant gu wér waaye di sant membre yi ngeen àndal tam waaye nag di sant suñu soxna yu baax yi ñoom ñii yàlla di leen defal teranga waaye teranga ji leen yàlla defal dañ koo xam nag te nangu ko moo tax ñu nangu koo delloo ci seen mbokki taalibe nangu koo delloo ci seen mbokki euh, julit kon ñu ngi leen di ñaanal suñu borom def leen fan yi gudd ak wér seen bëgg-bëgg yi nga xam bëgg nañ ko muy ñëpp baax am lu baax yàlla nañ ko am yàlla nañ ko am te ñëpp ñëpp ñëpp fekk ko ci barkeb Serigne Touba ko ñaanal sëñ Cheikh Amadou Mbacke mu sëñ Chouaïbou ci yéenam di ko ñaanal mboolem njabootu Serigne Touba waaye di ko ñaanal tam sëñ Habibu sëñ Alaji Mbàkke moom sëñ Habibu moom itam ci taxawaayam bu am solo di ñaanal ñëpp fan bu gudd ak wér ak yokkate bu baax a baax a baax a baax a baax ànd taxaw ma di ànd daal ca kanam dégg naa ko ko wax léegi bërigob suuf la rek bu buñ teg ci mbattal bërigob suuf nag buñ ko tegee ci mbattal boo xamee ni moom boo tegee sa loxo mu dem boo tegul sa loxo mu dem boo ko tegee di nga am ndam waaye waaye bu bu la rombee teg ci sa loxo rek bu ko ñu ni ca njëkk yóbbu nga bokk waaye fokk mu dem moom ku bëgg dem ku bañ mu dem xool leen ban dalee dox ba nëgëni jéego bu nu jéggi rek am na ñu topp suñ ginnaaw naan duñu danañ dem ak duñu dem waaye ñuy dem rek dañuy mujj dootu ñu nu gis dootu ñu nu dégg kon ku bëgg a ànd ak bay ba nga ñoo dab ñu nun dootu ñu xaar kenn ca kanam rek lañ jëm ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaanal waa presse bii nga xam ne ñooy suñ premier partenaire mooy TSTV ak Waar wi TV seen liggéey bu rëy bi nga xam ne ñu koy liggéey nu ànd koog ñoom liggéey la boo am solo boo xam ne nii am na presse yu leen gën a rëy lamañ ëppale leen ay matériel te ñoom seen njariñ moo ëpp njariñ presse yooyu kon nag ñi ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaan suñu borom yokk leen man-man bu baax a baax a baax a baax baax nañ dem ba am ay rajo am ay télévision ñoom bu ñu ko amee dañ liggéeyal yàlla bu ñu ko amee dañ liggéeyal Serigne Touba kon TSTV ak Waarwi TV ñoom dañoo war a jëm kanam nañ jëm kanam bu baax a baax a baax ñoo ngi sant bu baax sëñ Murtada Gaye comme ni ko mbokk mi waxee ni mu ko seedee ni la ko ñëpp seedee di sant baax sëñ saane nga xam ne nii caméraman la boo xam ne ni mu laabiree ni mu baaxee lépp lu mu joxe rek qualité lay doon di sant sëñ Basiir mi nga ne mooy kilifaam di sant soxna maam Jaara Seck mii nga xam ne ab murid saadix la képp ku mu dalal soo noppee di nga di nga di nga jàngat ba ndax dana la wan yar dana la wan teggin dana la laaj loo xam ne lu mu xam la ak loo xam ne euh, boo ci jógee yow mi ñu ko doon laaj sax da nga ca jariñu kon soxna maam Jaara yow ñu ngi lay sant baax ndax ba waree dem yàgg na waaye bëgg lu baax ànd ci social bi ànd ci taxaw ma Madiyana moo tax mu nangu fee toog di taxaw couvrir mbir mi ba mu àgg xam ñu nga xam ne waa Al Mouridiyyah TV wax nañ ni bëgg nañoo teewee jotaay bi waaye mbir mi dafa bette te dañoo nekkan ci programme waaye wax nañ ni li nga xam ne moom ñoo ngi koy jël nañ leen ko jox suñ leen ko joxee ñoom danañ ko teg ci télévision bi teg ko ci rajo bi ñi ngi ñaan waa ànd taxaw Madyana ñëw ñu defal leen plateau ñu waxtaan ndax xam nañ ne ànd taxaw Madyana liggéey la bu rëy boo xam ne nii képp koo xam ne yaa ngi ni ne ci dëkk bi da ngay liggéey Serigne Touba te àndoo ak ñoom liggéey Serigne Touba gi des na mataloo boo ne mataloo matal nga des na kon nag ñi ngi xamal waa ànd taxaw Madyana nii li nga xam ne moom la gars yi jël nañ leen ko jox bu ko defee ñoom dañ ko teg télévision teg ko rajo ñu ngi ñaan ñu defal leen benn plateau boo xam ne dañ ci waxtaanee loo xam ne jëm na ci ànd taxaw Madiyana ñu ngi leen fat di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullah